Ah, sànq dafa am mbokk mu ma laaj dama waaw daara yi moom jamono yii lan moo war a nekk seen jàkkuteef ma ne ko ah xanaa li ko mas a nekk rek te mooy ñu jox leen seen ak bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne métier mi gën ci métier yi mooy métier mi xew fii ñiy jàng ak ñiy jàngale ak ñi am ko kóolute ci daara yi di leen jox seen njaboot jaadu na bu ñuy séddale ñëpp di am ñëpp ñëpp di am ñu bañ a fàtte daare yi te ñu bañ leen di réserver ay desit ak ay ay ay yalwaan rek dañoo war a am ak budget bi ñu ngi ko dooree le bu yàggul rek ne nañ nekk na ren juróomi junni milliards yu teg xam naa ku ne laajoon lan la ci daara am bootul dinañ wokk seen seen bopp ndax góobu ma ne daara am na ñaari fiskin yamuñu foofu la ñu joxoon daara itam muy 14 milliards yi nga xam ne Abdoulaye Wade jëloon na kàddu yi mu desoon 10 10 yi président bi fi nekk tabax ci 64 daal di këf def kër kër 30 30 32 yi mu des kon 32 kon léegi sarax bu jóge ci bitim réew nekk 74 milliards. Alabaan jël na 4 milliards yi Macky Sall jël na 5 milliards yi mu des 5 kon ak a neexoon gumba yi ñu bàyyi leen ak seen yalwaan waaye loolu duñ ko def dama ne nag li waral loolu amul mooy taalibe yi dañoo niróowul ak ñeneen ñoom du ñu sànni xeer du ñu saaga du ci réseaux sociaux yi ah du ci itam média yeneen yi waaye ñoom toujours walaay man nakum shan'an qawmin la ñuy doxee ak a neexoon ñuy doxee rek. al aynu bil ayni wal anf bil anf ñu ko doon def kon ba léegi dox na leen seen àq boo watul nag foofu lañ jëm fi may jeexale daal mooy daaraa nga ñaan daaraa ñaan genre bi ñu def ci suñu permis yi genre bi ñu def ci suñu kii ñu dindi ko genre kenn xamul lan la xam nañu góor xam nañu jigéen waaye genre kenn xamu ko genre moom lañ ci xam mooy nguur ni ngaana te nguur ni ngaana boo ma ne kenn nangu la ñu tudde la ko nañ dindi genre benn genre bi ñu jox daara yi itam nañ ko dindi wax yàlla département bi yoree daara nañu xam ne moo yore genre kon nañ ko ci nañ ko ci dindi ah way jur yi ñu génn ci suñ carte d'identité itam nañ ko delloo si nit day am ndey ak baay waaye bu ñu demee ba ndey nit ki dana putt rek amul ndey amul baay loolu xam nañ fi ñu jëmale nit ñi mooy banaliser mbirum mariage mbirum sëyu familial dootul amati loolu dafa war a deñ loolu daan yëpp war nañu yokku ci kaw te dama naa kat euh, kokki mën na nekk porte parole daal yi ci Sénégal ak yi ci Afrique àddina bi yëpp yëpp daan yàlla defal tawfiq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim